ci gàmmu gi ca Tiwaawan sunu waajur mi bare yërmande ci ñun di sunu kilifa gi bëgg yiw ci ñun di El Hadj Abdoul Aziz Dabakh dafa ñëw ca jàkk sëriñ Babacar Si am lu nu déeyante jëme ko ci alxaaji Saidu Nuur ma ne ko sunu maam bu sopp kër gi la ma ni ko te bari yërmande ma ni ko soxna si dafa mas tawat góor gi ni ma yóbbu ko ca sa maam xaaji Saidu Nuur ni ko nu ko wutal doktoor lu tax xanaa cheikh doo ko jox ñam waaw lu xanaa doo ko jox ñam mi ngi tuuti lu ko lay aw li nga man koy def waaye dafa foye ñam muy def bu xëyee suba moom ci boppam indi ndékki jox ma wallahi ba muy bëgg ëpp weer bi soxna si dellu mu wooma ma ñëw mu yëkkati benn jallab bu weex jox ma li ma dee ko sol te bu ko maye soxna sax di toog soxna si ni ko ne sa xel dal du ko maye ba ñu ñëwee ba ca kër ga benn mag ni ma jallab bi la bëgg nga may ma soxna si ni ko du ko may ndax ki ko ko jox nitu yàlla la te nitu yàlla la mu def moo xam lu tax ba di ko nettali cheikh alxaj abdul aziz dabbar mu ne ma xam naa ko wax ma nag tosan la waaw ni ma nii la deme nii la deme nii la deme waaw ni ma jàllab la bu nga xam ne fanaan na ci bàmmeelu yonent bi fanaan na ci sa raw du turandoo waaw ni ma ñaar la woon وجحم بن نبا جحل بن نبا ولك عمون ما بما جحل نبدنا لك يوني كلا منه وني ما يت ما عندي تامبلي بن قصيدة بما mi ngi di ma koy sug a yónnee xaaj Malick moo ko indi léegi Thank you. تبارك الله وعن دال ويل وحن من كجم تي كو ما يدوم مبكم بطم تي تورندو سرينو بطم كمدي احمد تجاني بو الخليفة المرحوم ابي بكر منئ يا نجل الكرام سمي شيخي مود الأولياء من لا يخيب وعبيد أمه يرجو مفازا من المولى الذي هو الرقيب زيارتكم بها تحيا قلوب لنا عنا وتنفرج الكروب زيارتكم لنا فوز وغنم بها تمحى الخطايا والذنوب بها جود بها الحاجات تقضى بلا مهرب بها ينجو الكئيب بها الأمراض تشفى ربنا قبل فرؤيتكم لنا مرعا خصيب وعالج بالزيارة خير شاف سقيما حبه فيكم عجيب يا شيخ التجاني فكن رحيما لسادات لهم أنت الطبيب واعطيم حقوقهم جميعا نح قلوبهم برؤيتكم تطيب لنا خصف ولو في الشهر يوما تزور الأهل أنت لنا نصيب وصل على المطهر خير هاد شفيع الخلق احمد يا قريب واصحاب كرام ثم ال اج له نعم الحبيب فتبارك الله إيه moom de gën na rëy ci ñun bu ko Serigne Babacar Sy defoon bu ko Serigne Babacar Sy ndax dañu wax ni ku la wuutu boole na sa cër ak cëram waaw rawatina cofeel gu kenn judduluwul ndax sunu maam ji ma tudd léegi xaaji Saydu Nuur yal na yàlla yokk leeram def ma ni xam nga loo bokk ak sa bopp ma ni ko waaw waaw mu ni ma lu ngeen bokk ma ni ko moo Sëriñ Babacar Si Haj Malik moo leen jur mu ni ma dégguloo ko mu ni ma li ngeen bokk mooy su ngeen juboo defar jamono waaw waaw jëw ko jëw ko ko jëw ku ko xam la waaw jëw bu mel na ba ko sunu baay ba jëwoon président Lamine Guèye dafa ànd moom dafa ànd ak El Hadj Abdoulaye dem màkk bàyyi ko ba mu toog ci biir nit ñi mu laaj ko laaj bu nga xam ni ña ko fekk ñépp nañu dañu doon miir laaju boroom xam-xam nee na mu ne tekk ba mu yàgg ni ka am masna naa ko laaj sëriñ Babacar si mu wax ma ci nangam wax ma ci nangam wax ma ci nangam wax ma ci nangam wax ma ci nangam nee na ba waxtaan wa jeexee ba mu dëdd nee ma ni kii ñaanal leen ko gudd fanaan ko ko yàlla mayee fu mayu waajuram bi àgg ak magam yu baax yi ci ñaanu jullit yi yàlla dina fa àggale maye waaw te yooyu yëpp ñu waxtaane ko ma dëgg dël ko ma dël ko ñu ko bala noo bàyyi ñëpp nekk benn mu ne ma mayit maa ngi lay déeli bés boo ko def loo waxati yàlla mu def